li sadinatan bi ginnaaw fan yi nga xam ne xalif général de mourides sëriñ Mountakha Mbacké Bachir da ko fatu woon ñu ngi xamle ne sëriñ bi dana ubbi niki àjjuma dëppook fukki fan ak benn ci janvier 2019 ñuy xamal ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokki taalibe yi daayira yi ak kilifa yi nga xam ne dañuy ñëw di ziare ci sëriñ bi ne loolee dana door incha allah niki le 11 janvier 2019. sëriñ bi nag mi ngi recevoir daayira yi fi nga xam ne moom moo di ci résidence Xaadim Rasoul bu benn waxtu ci bëccëg jotee rek ba ñetti waxtu maanaam 3 heures ci diggante 13 heures jàpp 15 heures. bis yi nga xam ne mooy bési ziar yi ajjuma la samdi dimanche ak altine waaye talaata. àllarba ak alxamis sëriñ bi da koy fatu du recevoir daayira kon ñuy ñaan mboolem taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw di ziare si ñu sàmmoonteeg waxtu yooyu ak bés yooyu nga xam ne ci la sëriñ bi di ubbi ak it ñu leen di ñaan mboolem teggin yi nga xam ne bërëb bi moom la làmboo muy résidence Xaadim Rasul gi ñu sàmmoonte ak moom ñu ñaanalaat Cheikh Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi lool tànd ak wér. المنة لي سكينة بكل الجنة من دار المنن يا فالمنة